à CTV la chaîne des patriotes. jërë ngeen jëfati mbokk internet yi nga xam ne saay su nekk yéen ngi safoo di seetaan seen seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes bés bu ne ni ñu koy defee seen jotaay si seen seen bi di ASID TV di dalal suñuy gan di fas yéene waxtaan ak ñoom si actualité nationale tey nag ñu dalal ki nga xamante ne muy Abdallah nekk si parti Pastef ñu koy nuyu di ko ziar bu baax Abdallah nuyu nañ la di la dalal si ASID TV. waaw Modou Mbaye maa lay nuyu di la di nuyu. mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel chaîne bu mag bii nii di ASID TV la chaîne des patriotes. Mhm. Abdallah dañuy bëgg di waxtaan ak yow tey di ci gën a fës muy actualité nationale ndax bés bu ne bu fi dalalee suñu gan rek li ñuy waxtaan ak moom mooy actualité ndax actualité bëgg nañ saay su nekk suñu mbokk yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk fii ci biir Sénégal xam li xew ci seen réew la sa gën a fës bokk na si mbirum coowu réseaux sociaux yi kii di njiitum réew Macky Sall yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yéen ñi nga xamante ne da nekk si réseaux sociaux yi di def ay live Facebook wax ne ay kàddu yi nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy dégg muy wax ñàkk valeur bi nga xamante ne ñu ngi koy seetlu si Sénégal ak yu bëri yoo xamante ne daanaka buñ ko seetaanee dina ëpp doole lool yéen ñu si bëri génn def réplique daal di wax ne ñàkk valeur bi ñu koy seet si ñu féetee moom si la gën a sakkanee ndax ñu féetee moom ñooy saaga Abdallah loolu ban analyse nga si am mooy kàddu yi nga xam ne Macky Sall yëkkati na ko jëmale ko si réseaux sociaux yi. jërëjëf encore une fois Modou Mbaye di bu baax a baax liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa koy def ci réseaux sociaux yi si sa chaine bi ni nga xam ne mooy ASID TV la chaîne des patriotes. Mm-hmm. pour sensibiliser Sénégalais yi. Mm-hmm. donc président Macky Sall ci boppam moom ci boppam moom warul sax wax waxu valeur parce que moom ci boppam rek moom contre valeur la euh, moom bi mu fi nekkee image bi muy wane yëpp ak lépp lu muy prôné mooy contre valeur avant muy nekk président tamit la même chose dañuy dellu ginnaaw rek laataa muy nekk président bi mu nekkee euh, premier ministre en 2007 dafa demoon euh, ci élection présidentielle yi Fatick di voté mm-hmm. fàtte carte d'identité président commission bi na ko monsieur le premier ministre vous ne pouvez pas voter car vous n'avez pas votre carte d'identité avec vous. mu mhm. ne et après xoolal ne damay voter par force mu ne je vais voter par force xoolal mu ñëw forcé dugg ci isoloir bi voter par force en tant que premier ministre. jamono jooju noonu Ablaye Wade dafa waroon a dàq ba pare ñu yóbbu ko tribunal juge ko pour abus de pouvoir wala excès de pouvoir Macky Sall kon amul valeur parce que ku am valeur du daf loolu. deuxième bi mooy Idrissa Seck ak Macky Sall euh, ñoom ñaar ñëpp xamoon nañ seen diggante nu meloon dañ doon xiiroo di ŋaayoo problème mu positionnement la woon quoi en 2004 bi ñu dàqee Idrissa sek ci 4 44 bi avril 2004. Mm-hmm. bi suñ fête suñu 44e euh, anniversaire succession indépendance. Mm-hmm. ci la Ablaye Wade dàq Idrissa Seck. léegi Macky Sall nag remplacé ko nekk premier ministre. mais Macky dafa defoon benn genre clan bu mag au niveau du parti démocratique sénégalais mook ay nitam. Mhm. di xeex Idrissa Seck. di yónni ay nit ñuy dem ci presse di saaga Idrissa Seck ba créer sax un journal qui s'appelait Il est midi. journal boobu euh, bi mu waree apparaître ki nga xam ne moom mooy Père Abdoulaye Lam jamono jooju mu ngi woon Walfadjri man ak moom ñoo fa nekk ndoroon man maa enregistré publicité boobu noonu Père Lab moo ko publicité wane ne am na benn journal bu bees bi war a génn bu tudd il est midi ce journal la Macky Sall moom moo ko créé woon jox ko ku ñuy wax Ndiogou Wack Seck uniquement pour insulter Idrissa sek yàq dërëm. Mhm. moo tax gis nga bi mu faloo en 2012 dafa jël Ndiogou Wack sek yóbbu ko RTS def ko PCA RTS mooy président conseil d' administration. ba mu faloo 2012 quoi. waaw ba mu faloo 2012 ce même Macky Sall la ci jamono yooyu il avait créé euh, une rajo bu tuddoon seen Info rajo bi Sen Info la tuddoon mu créer ko pour propagande pour di yàq deru Idrissa Seck mhm. ñoom ñaar nag ñoo yem ay naafeq lañ qui se sa s'assemble mhm. ñu nuroo ñoom ñooy ànd léegi nag guerre bu ñu nekkoon jël nañ ko teg ko fële ne dañuy ànd ànd boo xamante ni nekkul ànd pour sincère ba tey ci contre valeur u Macky Sall yi bi mu faloo bees dafa waxoon ne moom sept ans lañ ko fal waaye il va faire cinq ans parce que euh, mandat bi waxul nekk sept ans quoi war a nekk mhm. parce que sénégalais yëpp am ci moom yaakaar mu wor sénégalais yi mhm. dem làqatu ci gannaaw conseil constitutionnel ku am valeur du def lool mhm. Macky Sall boobu noonu moo fi jàpp Khalifa Sall yónnee ko inspection général d'État mm-hmm. ñu càmbar ko félicité ko mm-hmm. rapport bi mu ngi ko yore mënu ko déclassifier ba léegi daf ko mm-hmm. classé ñu félicité ci Khalifa Sall mu xam ne Khalifa Sall euh, moo ko man ci Dakar bu demee Khalifa Sall élection il va pas gagner Dakar parce que Khalifa Sall daf ko gagné deux mille quatorze ci élection locale yi bi mu yónnee Mimi Grand Yoff pour mu représenter ko fa léegi loolu tax mu ne day éliminer Khalifa Sall. Mhm. mu jiñ ko un milliard huit cent millions yoo xam ne Mamadou Diop bi mu nekkee maire de Dakar yàlla na ko yàlla yërëm noonu la ko doon jëfandikoo. Mhm. Euh, Pape Diop noonu la ko doon jëfandikoo ñoom ñëpp ñëw nañ def ay témoins ay mhm. témoignages. wane ne euh, Khalifa Sall nu muy doxalee caisse d'avance bi noonu la ko war a doxalee mu jaay ko doole tëj ko xañ ko ay droit yam jënd justice bi. réew boo xamee c'est un état de droit une république une démocratie. am séparation de pouvoir yow nga gérer sa exécutif législatif bi war a gérer assemblée bi judiciaire bi war a gérer justice bi ku nekk moom sa bopp mu jógee moom ci exécutif bi dafa jënd ji justice bi di def ay règlement de compte mhm. bi mu faloo bees tamit dafa acharné wu ci kaw bi euh, Wade euh, bon notamment euh, Karim Wade doomi Ablaye Wade bi nga xamante ni papaam moo ko defal lu nekk moo tax sénégalais yi xam ko moo ko def directeur général Petrosen def ko ministre de des mines def ko ministre de hmm. premier ministre président de l'assemblée nationale ñu am problème mu falu ba pare ñëw di acharné wu ci kaw famille Wade indi benn cour boo xam ne Abdou Diouf ko créé woon muy euh, créé mu réactiver ko uniquement pour acharné wu ci kaw famille Wade loolu ku am valeur ak ku am ngor du ko def Karim Wade ñu yóbbu ko tribunal àtte ko loolu c'était une demande sociale sénégalais ñoo ko doon laaj mais ko jaarale ci yoon. juridiction internationale yëpp. nee nañ àtte Karim Wade jaarul yoon ak àtte Khalifa Sall kon kooku nekkul nit koo xamante ni dafa war a jàngale li nga xamante ni moom mooy valeur. ñu ñëwaat ci bi mu Macky Sall ba tey anti valeur contre valeur Souleymane Jules Diop moo nekkoon kanada il insultait tout le monde tous les Sénégalais il insultait le président Abdoulaye Wade il insultait il insultait même Macky Sall l' actuel mm-hmm. président de la République. Mm-hmm. am na benn audio yoo xam dafa ne Macky Sall nan la mën a nekkee sax chef de quartier bay nekk ministre Macky Sall dafa tële il est incompétent lu nekk mu yàq ko daka ka daan lu mel ni xam comme moom dafa bañ ko ko contre xam nga adversité nanguwul ko accepté wul loolu ak ku koy opposé mu xam ne moom il est incompétent parce que il a été élu par défaut xam moom xam xam na boppam. li alxuraan di wax ne bal insaanu ala nafsihi basira nit ku nekk yow yaa gën a xam sa bopp. Mhm. xam na ne moom voilà nit ku tëlee la quoi dafa am chance rek falu parce que qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha yàlla mooy xool ki ko neex. mu mhm. jox ko nguur. léegi nag mu xam ne moom bu toogee continuer Jules Diop il va continuer di def la même chose di ko insulter depuis Canada. mais Souleymane Jules Diop sax dafa mel ni am na benn fuite audio bu génn ah, mooy bu muy wax Serigne Modou non loolu yàgg na boobu sëñ Modou. loolu yàgg na mais loolu jamono yi bu muy wax sëñ Modou Kara recevoir na ak yooyu noonu kon moom ñu seetlu ne moom mosul jox war ma kilifa diine. kooku moo gën a ñàkk teggin gis nga kooku mooy ku njëkk a def live ci réseaux sociaux yi boobu réseaux sociaux yi amagul nii doole quoi boobu moom mu ko doon jaaree à travers l' internet euh, ci euh, sit bu Seneweb. par mardi la woon émission bi nga tuddoon dégg-dégg mardi à partir de quinze heures wala à partir de seize heures man je me rappelle très bien am na sama benn xarit bu nekkoon HLM Grand Yoff mhm. këram laa doon dem chaque mardi suñu añee ba pare ñu coach Souleymane Jules Diop euh, di ko déglu si actualité bi comme ni ñuy kojee ay xalaat TV ak ñuy kojee mhm. ay ñoom Pape Alé Niang su actualité amee yeeg yooyu noonu quoi mhm. wala ay Babacar Touré Kewlo donc Souleymane Jules Diop boobu noonu il insultait tout le monde sëriñ yi la doon saaga sëriñ di saaga Ablaye Wade di saaga Macky Sall moom moment boobu noonu maa ngi lay wax ne réseaux sociaux yi nu mel nii mais la ko boobu euh, su fekkee ne YouTube am na parce que YouTube 2005 la am. Mhm. su fekkee ne boobu YouTube am amoon na ni mu meloon nii melu ko woon boobu Facebook amagul moom. dëgg la Instagram amagul WhatsApp mhm. amagul woon. Mhm. moo tax mu doon jaar ci site internet bu Seneweb bi nit ñi di ko fa doon dégloo ak condition yu métti des fois daf daan dagg connexion muy saaga ku nekk mu saaga la ku nekk mu attaqué Macky Sall saagakat boobu noonu le plus grand insulteur des réseaux sociaux di Souleymane Jules Diop moom la Macky Sall recruté teg ko ci wetam def ko ministre ci premier ministre ah mm-hmm. moom la recruté dugal ko ci biir cabinet am dugal ko ci ci gouvernement bi njëkkoon na ko def ministre après léegi mu def ko directeur bu PNUD je pense représentant PNUD mooy voilà organisation yooyu noonu ONG yooyu noonu quoi yu Nations Unies yooyu noonu moom la gérer léegi donc c'est même Macky Sall boobu noonu ku bokk ci moom di Moustapha Cissé Lo moo fi saaga nday yaa xam bay fan la ko jaarale mu ko jaarale ci réseaux sociaux yi muy WhatsApp envoye yaa xam bay message vocal di ko daggal ay saaga nday yu ñaaw moo Farba Ngom di leen saaga saaga nday yu bono bono bono bono bono bon hmm. loolu defe naa ne yow yëg nga ko sénégalais ñëpp yëg nañ ko Mhm. parce que ñëpp doon naa jaaf Moustapha Cissé Lo moo ko defoon. waa Moustapha Cissé Lo laay wax. waaw mhm. moom laa la wax. Mhm. moom moo fi saaga woon Farba Ngom. saaga fi Yakham Mbaye jaarale ko ci réseaux sociaux yi Macky Sall di wax ay nitam ñoom dañuy saaga nday ba nit ñi teg seen bët. yaa ngi comprendre. léegi Yakham Mbaye bi nga xam ne moom ci moom la bokk mais Yakham Mbaye jël na fi benn enregistrement boo xamante ni benn xaritu Ousmane Sonko ba woon koo xam ne ancien xaritu Ousmane Sonko la affaire u àdduna moo ko jaxase ak Ousmane Sonko ak affaire ay politique ak yooyu muy euh, le juge Cheikh Issa Sall le magistrat la quoi nga xam ne moo ko Ousmane ñoom ñaar ñoo euh, ay promotionnaire lañ fa la ne ca euh, ENA école nationale d'administration parce que fa la ñuy former inspecteur des impôts et domaines inspecteur des douanes ak les magistrats mm-hmm. Issa Sall boobu noonu doon wax ak Ousmane Sonko en discussion privée ba pare enregistré Ousmane Sonko à son insu yaa xam mbay jël ko dem yóbbu ko ci télé bi nga xam ne Macky Sall lay liggéeyal muy lëndëmal TV du ma wax leeral TV lëndëmal TV. Mhm. nga xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal di ko defal ay sale boulot ba pare jox leen exclusivité bi te loolu diffusion euh, de données ak caractère personnel la c'est interdit par la loi loolu ko am ah, valeur te kooku Macky Sall la àndal sa même yaa xam mbay boobu moom maam mbay ñaa ñoo dem ci weeru kooru daaw ci plateau Ramadan show bu 7TV toog fa di tuumal gor te loolu dafa xaram yàlla nee na ci sóoratu nuur képp koo xamante ni dangaa tuumaal gor njaalo dañ laa war a dóor quatre-vingts yar muy samaaniina jalda mm-hmm. te ñoom nee nañ ay jullit lañ ñu def ko ci weer boo xam ne weer bu màgg la ci dëkk jullit boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman am ay valeurs yu baax même ñu nekkul jullit sax dañoo yor ay valeur yu baax mooy suñu mbokk chrétiens yi suñu mbokk animiste yi ñoom it suñu mbokk chrétiens yi ci dina lañ nekk nga toog ci weer bu tedd boobu di chehru ramadan al mubarak nga xam ne ci lañ wàccee alquran mhm. nga nekk fa di saaga nit ki di ko tuumaal njaalo te yow amoo dara lu la ci leer te njaalo yàlla wax ne il faut ñeenti nit ñoo koy fekkee ba pare duñ bokk fu ñu jógee duñ joxante rendez-vous foofu noonu te buñ ñëwee dañuy gis ku góor ki génnee awraam dugal ko ci awra ku jigéen ki ba pare nit ñoo ñeent nit ñoo dañu nekk ay nit ñu crédible duñu nekk ay fenkat mm-hmm. parce que fenkat moom mënul seede boo nekkee fenkat moom mënoo seede ci lislaam mm-hmm. benn nit rek bu gisoon kenn di njaalo mënu ko seede ñaar nit bu gisoon kenn di ko seede léegi nag ñi bokk ci Macky Sall ñoom lañu gis ñoom ñu toog ci télé yi di saaga te ay ministre lañ Mame Mbaye daa daanaka rang ministre la am parce que chef de cabinet la nekkoon na ministre tamit nekkoon na ministre. kon ñu ànd ak ñoom la ñuy gis ñuy saaga mais est-ce que yow mas na gis ku ànd ak Ousmane Sonko bokk ci bureau politique. parce que li muy wax li muy wax Ousmane Sonko moo tax mu koy ñoom seen wax yi Ousmane Sonko la moo tax parce que moo leen xañ jàmm mosoo gis ku bokk bureau politique bu Pastef wala an fa benn ndomba tànk muy El Malick di Fadilou Keita di ajuma Sow di Sare di may Maymouna Dieye Khadija Maykor ah di nu Ousseynou Ly euh, Citizen xam nga ku lim da ngay juum quoi ñoom Amadou Ba hmm? gars yi bëri nañ xam nga Jomaay euh, Fay ma soo cee dégg kenn ku toog di saaga nit wala di saaga Macky mais Macky Sall ses propres ministres ses propres responsables politiques am quatre membre APR ñu xàmmee leen ñu actif ci parti bi ñoom ñooy toog di saaga Ousmane Sonko ñoom. mais Abdallah Abdallah am na su ñoo xamante ne tey xam nga man li nga wax je suis d'accord ci côté bureau politique gu Pastef doo si gis ku nekk si biir Pastef di saaga comme ñi nga lim muy Adjuma Sow Diomaye fay ak euh, ki nga xam ne muy El Hadj Malick Ndiaye Birame ñoo ñooñu seen niveau nekkul foofu si ay saaga loolu xam nañ ko mais si Facebook bi da nga gis ñoo xamante ne bokkuñu si Pastef dañuy woote seen bopp activiste dañuy daggal saaga ndey waaw léegi ñoom dañuy daggal saaga ndey ñoom dañuy wóoyoo parce que tey saaga bu ñu paree Ousmane Sonko la ñuy tudd ne moo fi sës moom moo mën a yor Sénégal alors que ñoom ñi ngi daggal ay saaga ndey nekk ay activiste nekk si réseaux sociaux yi est-ce que du ñoom la Macky Sall di waxal Modou Mbaye bépp organisation boo gis il faut mu ah. am ñoo xamante ni dañ ciy rax di def loo xam ne bokk ci di def naka suñu xam nga nga nekk mais doo daggal saaga ndey yow Pastef nga nekk sa xam nga doo ne maanaam tey bokkuñu ci Pastef amuñu sax carte de membre. bokkuñu ci Pastef amuñu carte de membre. te loolu c'est mhm. plus dangereux. bokkoo ci parti amoo part de carte de membre yaa ngi wuyoo turu ku nga xamante ne moom sax moomul parti bi dañ ko teg ci kanamu projet bi Ousmane Sonko ngay daggal saaga ndey. loolu dañ koy gis ci réseaux sociaux yi. waaw dama la doon wan mën na la. Mhm. loolu dafa am ñuy Olof Ndiaye na dafa am ñuy gàmmu ak ñuy raas dem gis nga diine l'islam ji ñu nekk nii mais. dafay dafa dafay tere góor jigéen maanaam góor jigéen abomination la ci góor ci ci l'islam mhm. yàlla daf see dëpp dëkk fa ja'alnaa aliyaha saafilaha wa amtarnaa alayhim xijaaratun min sijil fa ja'alnaa maanaam dafa dëpp benn dëkk dëpp ko ndax jëf yu ñaaw yooyu ñu doon def ba pare taw ci seen kaw taw boo xam ne ay xeer la yu jógee ko euh, sijil mooy benn point la ci ci safara moo mhm. nga góor jigéen dafa xaram lu ko gën a bon amut mhm. ah mais am na ay julit ñoo xam ne ay góor jigéen lañ mhm. am na jullit ñoo xam ne dañuy sàcc mais sàcc dafa xaraam am na jullit ñoo xam ne ay fenkat lañ fen dafa xaraam am na ay jullit yoo xam ne ay seytaane lañ di jaxase ay nit te pourtant ay jullit lañ lu ñuy def noonu loolu bàkkaar la boo ñëwee ci tarixa nga dem màggalu Tuuba <laughs> am na ñoo xam dañuy dem màggali mais am na ñoo xam dañuy dem di mhm. dañu fay dem di def naka su dul noonu di sàcc. Mhm. di tafu nit ñeeg yooyu. moo tax police bi di jàpp chaque jour. waaw boo demee ci waawoon même chose nga dem Medina Baye même chose. Mhm. te pourtant dañ fa oote nag ñëw leen ñu def lu baax boo demee Popenguine tamit même chose ñëw leen ñu jaamu yàlla loolu lañ oote. léegi organisation boo gis rek mbooloo boo gis dina am ñu ci rax ñoo xamante dañuy def naka su dul noonu tey jii am na ñoo xam ne mën nañoo ñëw di mbubboo ne ñoom Ousmane Sonko lañu àndal te amuñ sax carte membre ay admirateur lañ xañ mhm. mais mën nañ di saaga est-ce que Ousmane Sonko mën na leen a xam kenn ku ci nekk fa nga nekk mu ñëw wax ak yow na la bul saagaati wala dara wala muy déglu ñëpp am na ñoo xam dañoo frustré la sax mais pourtant loolu dafa mel ni Ousmane Sonko am na benn julli euh, benn benn événement am na lu xewoon. Touba la woon événement religieux yi Touba woon. su suñu confrère yi bañ ko tegee micro wax na ko nee na képp koo leen gis muy saaga si réseaux sociaux yi wala muy nëbb kanamam di wax ay wax yi ñaaw di ko jëmale si kilifa dina yi na ngeen xam ne bokkul si man waaw te man sax gis naa ñoo xam ne dañuy saaga mais dañoo frustré contre Macky Sall façon bi ñuy yoree réew mi ñaawteef yi ñu yoree réew mi ak jaay doole gi ñuy jaay nit ñi doole di leen tëj ci kaso yi di toroxal nit ñi ak impunité bi am Sénégal ak népotisme bi boo àndeek moom dara du loo mën ci def dara la ci fekk soo àndatal moom mu rëbb la parce que da nga kaa contre jàppale tëj la ci kaso loolu moo leen di frustré ba ñuy saaga Macky Sall mais dañuy toog sax na ñoom hmm. boo xam ne toog na ay yooni yoon naan man bokkuma Pastef te pourtant day saaga am ñoo xamante ni ñu ngi live ba pare nit jàpp ne Pastef lañ bokk te nee nañ Ousmane Sonko lañ àndal hmm. dañoo bëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo leen doy pour remplacer Macky Sall programme mais amuñ sax carte membre Pastef hmm. léegi nag mu am leneen mu am leneen tamit moom bay mu am ay yeneen xale yoo xam ne tamit c'est des admirateurs de Ousmane Sonko tey xale boo xam ne dix huit ans la am jàpp vingt ans ba vingt deux ans mën nañoo wax ne loolu xale la quoi. Mm-hmm. su gisee tey ñi teg Ousmane Sonko yenn injustice yi ah di yàq deram ci réseaux sociaux yi di fay ay jigéen ñu dévore gonde ñuy dem ci euh, presse en ligne bi di saaga di sos journalistes yi ñu jël ñoom nekk di saaga di sos di yàq deru Ousmane Sonko di def campagne de diabolisation contre Ousmane Sonko mais xale boobu su amee loo xam ne daf ko nakari ci ki nga xam ne moom la bëgg mais buy saaga du ko tey mais saaga culture la ci Sénégal nañu waxante dëgg saaga baaxul de. Mhm. mais c'est une culture au Sénégal. Mhm. te jii ñu ñii ñëpp nekk ci biir kër yi des fois nit bi nga nekkee xale sa yaay benn jour meer na saaga la sa papa léeg léegi mu mer saaga la voilà. léeg-léeg nga nekk ak sa ay xarit di ànd ñoom ngeen di saaga wante moom président bi sax dégg naa bu meree day saaga parce que dégg naa ci affaire Ousmane Sonko bi da cee mooy affaire Adji Sarr beeg Ousmane Sonko dégg naa daf ci bëggoon a xam nga rek pour tëj Ousmane Sonko parce que moom Ousmane mooy problème am te bëgg mooy toog fi ba mu neex ko mu jógee loolu moom mooy projet am dégg naa ci pale ba la toog di o Basirou Gueye di saaga nday naan nanga mal leen ma ko ndayam ci kaso bi dégg moo tax Basirou melo ni ku dof di dem di copier ay photo pornographique ci yenn site internet yi di ko dugal ci dossier bi naan salon bi jigéen ñi ñoo nekk ci salon mais Abdallah Abdallah xam nga tey dañ ne Macky Sall gënul si réew mi am nañu wax loolu d'accord ñu si politique am d'accord ñu si lu muy gouverner mais nit kii est-ce que du fekkee ne yow d'accord si nu muy gouverner nga bëgg indi li gën est-ce que nekkul tamit dafa war a am noo communiquer ak doomu aadama yi pour nga wane ne man li may indi moo gën ñii liñ fi indi baaxul. xam nga tey ñi nekk si biir Pastef nekk si Facebook bi man xam naa leen am si ñoo xamante ne mm. maanaam yar gi nekk si moom war yar gi nekk si ñoom duma leen mus a gis ñu saaga. mais tey ñi nga xam ne dañuy wuyoo turu Pastef nekk si réseau sociaux yi di saaga est-ce que yéen tam nekk yéen ñi nekk si biir Pastef jarul ngeen am ci benn taxawaay boo leen si taxaw jëmale ko si ñoom. sans tamit ngeen bañ ñëw di leen filistrer daal. Modou Mbaye kenn encouragé wul ay saaga man saaga du ko def man ci internet bi jamais. am am na ñoo xam dañuy mbubboo passif am ay règlement de compte yu ñuy jéem a jëmale ci sëriñ si. am ay réglement de compte yu ñuy jëmale si yenn sénégalais yi. waaw mais dama xam nga sànq wax naa la ko man la mbir moo gis rek day am ñu ci rax xam nga tey man du ma cautionné saaga man bés ma demoon ba war a saaga ci internet bi damay jox kenn pistolet wala ma jox ko paaka ni ko suma saagaa pare nga raay ma benn ma dee parce que loolu xalaatuma ko sax ci sama àdduna man di toog ci mm-hmm. réseaux sociaux yi di saaga parce que li dafay des ba faw te mm-hmm. man dafa am fu ma bokk ku nekk nag am nga foo bokk mais man am na fu ma jógee foo xam ne foofu ku fa jógee référence ngay def muy Medina Cheikh Ibrahim Niass voilà am jabar am biyaay comme ñëpp am njaboot ay doom ñu war di xool réseaux sociaux yi bu ñu màggee ñu ne seen baay moo fi nekk di saaga xëy na am na ñoo xam ne ñoom mën nañ ko def xalaatuñu yooyu yëpp wala du problème ci ñoom mais man xalaatuma fi sama àdduna ñiy saaga tamit mais mënoo wax ñëpp na leen bàyyi leen saaga dinañ ko dénoncé nag ne saaga yi ànduñ ci ku nekk boo boo amee lu la naqare. nit ki mun nit ki mun nga wax li la métti nit ki mun nga wax li la métti. nit ki mun nga parce que Macky Sall moomul Sénégal Sénégal man la yow ak moom Macky Sall ak ay gouvernement am gouvernement ak ay waa këram ñëpp Sénégal ñun ñëpp la nation bi ñu ñëpp ko bokk mais man sama xalaat mooy nit ki nga bokk ci Pastef nga doon activiste di wuyoo Ousmane Sonko war nga mën a wax sa soxla ba daaneel te doo wax wax bu ñaaw. waa loolu moo gën maanaam ñun som sommes euh, dans une démocratie quoi nous sommes en démocratie. maanaam démocratie bu saaga quoi voilà. Mhm. xaaral démocratie ak liberté d'expression mooy wax sa xalaat. Mhm. te suñu culture ñun. lu ñu xamee mooy yiw maanaam maa ngi doon wax sànq ne saaga culture Sénégal la parce que ñun am nañ ay façon saaga yu bon saaga dañ koy dégg ci kër yi di ko dégg seen xarit mais pas nga koy def ci penc publiquement mooy réseaux sociaux yi wala nga nekk ci benn euh, programme bu mag yore micro di saaga ak yooyu xam nga loolu tamit mm-hmm. kenn du ko def bu ñuy saaga mm-hmm. d'habitude en privé man nga saaga en privé nga xam ne du dem fenn quoi mm-hmm. yaa ngi comprendre mais saaga moom dafa yiwul ñu lu ñu bëgg mooy nit ku nekk ah sooy wax nga wax sa xalaat wax ko ci yar ak teggin wax li la naqari te doo saaga nit mais attention am na saaga yi dafa bokk ci diabolisation Sonko bi moo tax ñu bëgg jël saaga yëpp féetale ko waa kër hmm. donte am na ñuy wax ne Ousmane Sonko lañ àndal dinañ mer dinañ frustré comme ni ma ko waxee woon sànq ndax ni Macky Sall yore réew ba bu ñuy saaga sax xëy na duñ ko tey yaa ngi comprendre. Hmm. donte waruñoo saaga waaye bul fàtte tamit ne waa APR yi wax naa la sànq ak waa Benno Bokk Yaakaar am na si ñoo xamante ni dañoo créer ay faux compte yu bëri jëndal ay xale ordinateur jëndal leen ay téléphone portable dajale leen di leen fay ñu créer ay faux compte des comptes fictifs daf ci photo Ousmane Sonko di dugg ci réseaux sociaux yi di saaga Serigne si di saaga Macky Sall su ko defee ñu ne waa Pastef mooy saaga loolu yëpp juste pour jaxase Ousmane Sonko ak sénégalais comme ils ont l'habitude de le faire yàgg nañ ko def comme à l'accoutumée ni koy defee à chaque fois mooy ne Ousmane Sonko moom yàq daraam rek gis nga fu ñu commencé ak moom yàgg na duñ ci ñëwaat ci ay salafiste lañ commencé ak moom mel ni salafiste dafa bon xam nga. Mhm. ñëw ci ay ibaadoo ay dafa contre tarixa yeeg mel ni nit ku nekk tu es obligé nga gëm tarixa wala dara <laughs> voilà xam nga nit man nga nekk Sénégal ba pare na mën jullit laa tout court gëwma tarixa mhm. te Ousmane Sonko amul problème ak benn voilà am ak ñëpp relation yu nice jógee fa gis nga lu nekk sosal nañ ko ko léegi nag fu mu nekk nii pour ñoom bu ñu nekkee di euh, étiqueté waa Pastef ay saagakat Sénégal yëpp dañuy génn ci waa Pastef mais waa Pastef dañoo violent ay saagakat lañ te fekk ñoom ñooy def loolu ñoom ñooy fay ay nit te loolu am nañ ci lu ah. am na benn waay bu ñuy wax Hannibal Jim génnee na fi ay liste parce que gars yi am na ñoo xam ne ay informaticiens lañ xarañ nañ ci wàllu technologie bi ay liste yoo xam ne c'est des comptes fictifs yu jël ay photo Ousmane Sonko jël ay logo Pastef def ci di saaga Serigne si di saaga Macky Sall te ñooñu ils n'ont rien à voir avec Pastef moo tax ma ne la ñi bokk ci Pastef di wuyoo Pastef am carte membre Pastef nekk ay responsable di wax nit ñi di leen dégg ñooñu doo leen dégg mukk ñu saaga. loolu li ngay wax waaw am na ñoo xam ne ñu ngi def ay post ñuy mubboo Pastef di saaga te bokkuñu ci mais bëri na man dégg naa benn. mais am na ñu ma ci xam man am na ñu ma ci am ñoo xam ne ay activiste lañ kenn fayu leen nekkuñu ci Macky Sall mais dañ leen xamee ci Ousmane Sonko carrément. te leer na ma ne bokkuñu si Pastef amuñu carte de membre de Pastef te ñoo daggal ñoo dàq saaga ndey sëriñ si ñoo dàq wax bu ñaaw si sëriñ si ñoo dàq saaga ndey ku mu mun a doon nag. mais est-ce que Ousmane Sonko ko sant. sant déggoo mu man kuy saaga di ma wuyoo di wax sama tur. bokkoo si man. kon kañ Ousmane Sonko moom li mu wax Ousmane Sonko li mu wax jeexal na wax ji moom kuy saaga bokkoo ci moom nit nag man nga ñëw ne man Modou Mbaye laa bëgg wala Hadj Abdallah laa bëgg wala Ousmane Sonko laa bëgg wala keneen laa bëgg ba pare di saaga ay ndey la nit dina ñëw sax di mbuboo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu wax nga ne nabi man nabien la fekk ma ngay def loo xamante ni bokkul sax ci diina ji loolu maanaam diina ji daf ko bañ da ko dàq bàkkaar bu mag na àdduna moo demee noonu nul n'est parfait amul dara loo xam ne dafay parfait bépp organisation boo gis diñ ci gis ay lacune loo xamante ni maanaam voilà àdduna moo demee noon doomi aadama noonu la ko yàlla moo ñëwee quoi mhm. xam nga waaye daal ñu xamal sénégalais yi na leen bu leen nangu mukk ñu leen di jaxase ak Ousmane Sonko. dëgg la ñiy tëb ñëpp di attaqué Ousmane Sonko. diabolisation la rek Ousmane Sonko nit ku baax la nit ku yiw la dañoo xam ne bu nekkee président remplacé leen dinañ xam ne dina fi def loo xamante ni parmi les quatre présidents kenn defu ko ci. wala parmi les cinq présidents bu falo dëgg la xam nga léegi nag tardement boobu noonu ñu am pendant soixante deux ans bi ñu amee indépendance ak léegi dañoo xam ne waa ji bu ñëwee mën na def différence. mën na indi rupture léegi nag comme ñoom bëgguñ ku leen gën te dañoo bëgg euh, comme saltel nañ géopolitique ba mu salte tilimal ko ba mu tilim dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu nekk benn comme Ousmane Sonko nekk sàcc nekk fenkat comme ñoom quoi xam nga loolu moo tax nag Ousmane Sonko comme exception la xam nga il est exceptionnel ñoom duñ bëgg ku leen gën gisoo au sein de l'opposition sax c'est la première fois au Sénégal ngay gis des opposants yoo xam ne dañuy opposé benn opposant waaw xam nga nit ku nekk li Olof Njaay di wax naan soo ajee doo bëgg ku teen boo suulee tamit doo bëgg ku sulli Ousmane Sonko boo gisee ñu koy attaqué nii ñëpp songandoor ko dafa nekk nit ku baax rek mm-hmm. mais bu nekkoon nit koo xam ne tekkiwul dara mais du nekk menace ci ñoom mm-hmm. fu nekk nii Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne il est élu euh, moralement maanaam Sénégalais da ngay dégg kuy wax sax naan la bu Ousmane Sonko ñëwee pour ñoom Ousmane Sonko nekk na président ba pare maanaam moralement il est élu Macky Sall nag fu nekk nii Sénégal yi dañ ko faloon 2012 2019 mu ñëw foqar ñu élection yi jaay doole def lu ko neex xam xam ne il est devenu impopulaire léegi bëgg a forcer Sénégal yi na def fii des par force te fu nekk nii Sénégal yi Ousmane lañ bëgg gis nga élection bu amoon suba suba suba élection présidentielle maki Sall jaarale élection yi ci yoon jël une personnalité neutre dénk ko élection yi rek ah ne ko ajo organiser élection yi mu jaar Ousmane Sonko day gagné Macky Sall au premier tour donte gagné élection au premier tour jafe na Sénégal mais Ousmane Sonko dina ko gagné parce que popularité bu mu am moo jéggi dayoo masul am am na ñu koy tëkkale sax ak Ablaye waat ci euh, temps yi muy opposé Senghor ak Abdou Diouf mais ba tey du benn. Mm-hmm. ba tey du benn. léegi nag loolu moo tax ñoom ñëpp ñu song ndox dañuy dañuy utiliser fu nekk ni les personnes les plus influentes pour ñuy dem di yàq Ousmane Sonko ci télévision yaa ngi gis pas boobu noonu si pas ngol-ngol xam nga. da lay wóor ne kooku voilà dafa jot mot d'ordre toog ci télé bi parce que c'est un prestataire de service amuñ xaalis voilà géwél la nag euh, je n'ai rien contre géwél parce que man doomu affaire géwél ay donc mais dafay dem rek di ut lu am bu toogee ci télé bi comme ku koo xam ne moom la ñuy gën a attaqué ku ko attaqué nguur gi mën na laa neexal <laughs> mais kooku noonu da da ngay toog nga attaqué ko pour mën a mos dara boo paree wàcc jaar ci bureau yi foofu noonu xam nga 2STV yi fu mu nekk biir Dakar la nekk côté port en face BCAO boo paree bureau yi jógee na foofu ministère yeeg yenn direction yi nga jaar waaye ñu la doon tey wuu sa waaj xam nga ko rey mais wax nga dëgg ils sont violents c'est des insulteurs affaire yooyu te ñoom ñoo dàq saaga ñoo gën a violent Macky Sall moo fi gën a violent Macky violence rek la xam Macky Sall moo fi ay ay nervi ñiy ay nit mooy ci avènement mars yi yore ay yet ak ay jaas infiltrer manifestants yi di leen dóor ñëpp di gis nervi yooyu na leen maatam li muy def soi-disant tournée économique am boobu noonu mu doon def di nax nit ñi di tour nit ñi leen def mais Macky Sall ñëpp gis nañ nervi nervi di doore mais Macky Sall moo jël ay nervi dugal leen ci police ñooñu ñooy encadré wu léegi bu ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Abdou Karim di mars ñu encablé wu ñoo dugal leen ci oto bu lëndëm di leen dóor bu ñu dawal oto ba ci àll ba sànni leen mais lu leen moo gën a nekk violence. mais mais Abdallah dafa am benn question bu tuuti bu ma la bëgg a posé si mbirum Pa Ngor Ngor xam naa li nga ko tudd mooy pa bi nekk de gestion bi. mais Abdallah est-ce que des fois di nga nangu ñu lay distraire maanaam politique ngay dox ci l'essentiel parce que fum mu toll nii dafa mel ni perspective yi di jëm si mbirum élection législative yi la ndax parrainage yi ñi ngi si. ak li jëm si mbirum inscription liste électorale yi jàll nañ ko mais tey man dama am benn constant bu ma am ci les partisans de Pastef nekk ci réseaux sociaux yi ñoom damay seetlu ku xuri Ousmane Sonko lu mu gën a ndaw dinañ génn tontu la loolu est-ce que politique la. waaye mais loolu dafa bokk na ci xeex bi ci combat lañ nekk nous sommes en guerre contre Macky Sall. Mm-hmm. mais yow ñoo xamante ni dañuy fay ay nit pour la diabolisation de. mais mais est ne jar nañu leen tontu ngeen dox si l' essentiel. xam nga gars yi dañuy. xam par exemple ku mel ni Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bu ma gisee ba léegi ñen ñi nekk si biir euh, euh, réseaux sociaux yi di di wuyoo Pastef bokk si Pastef ak ñi nga xamante ne activiste lañ fu ne Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi waxee rek ñu tontu ko loolu tamit est ce que tamit du distraire leen. waaw léegi xam nga affaire bi stratégie la ku nekk ki nga tollool xam nga Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi doo dégg El Malick Ndiaye di ko tontu doo dégg Adjuma Sow di ko tontu wala ay Bassirou Diomaye Faye yaa ngi comprendre gis nga affaire bi par niveau la ñu tolloog moom niveau bu waxee mais nañ ko tontu ñu tolloog euh, ministre Macky Sall yi niveau wala autorité yi am euh, dayoo comme ñoom bu ñu waxee ñu tontu leen parce que affaire bi tamit ci la bokk man damay contre ñuy wax naan no buñ tontu diw parce que dañ ñuy distraire buñ nangu ku ñuy divertir xam nga marchons vers l'essentiel xawma la nag lan dañuy nekk ci côté yëpp nañuy wax ci législatif yi di wax ci l'essentiel bi waaye tamit di contre-attaque buñ ñu attaqué ñu riposté mais soo toogee bàyyi gars yi di yàq sa der fay woo mais am na ñoo xamante ni dañ leen di influencer sénégalais dafa neex influencer sénégalais loo wax mu gëm ko ñu si ëpp mhm. léegi nag bu amul ñoo xamante ni dañuy euh, dañuy argumenté xam nga bu kenn génnee wax Ousmane Sonko lu ñaaw sosal ko yàq deram nga toog bàyyi ku noonu mais bu yàggee ah, <laughs> bu yàggee du baax il faut ñu leen di tontu timit ñu tolloog ay ñoom Koura Macky ak ñoom Fatou Tampe ak ay ñeneen ñeneen mooy xale yu tolloog ñoom <laughs> bu ñu waxee ñoom ñoon dañ leen di tontu ah. mhm. voilà donc ba tey ci affaire violence ñu doon wax ak euh, insolence yi ak insultes yi gis nga ndaw soos nga tudd Fatou Tampi xamul sax li xew benn dof la rek buy nekk ci réseaux sociaux yi voilà parce que daf na lu ne weng. non man moom dama part personnel man moom ndaw soo daf ma jaaxal parce que man. waaw mënu ma comprendre xëy rek commencé attaqué Ousmane Sonko. di saa xam ne lan mooy problème yor naa preuve yor naa nang man dañ comprend pas quoi. non non ay mots d'ordre la ñuy jot dañ leen a xam nga ku leen recruter mooy waa kër ministre de l' intérieur bi ak jabaram rek ñoom ñoo def seen benn groupe. boole ci ay ndaw soo su nekk Paris lu gàtt li sama ancienne collègue ba tam nekkoon Walfadjri. xam nga mooy lu gàtt li rek. Mhm. xam nga comme dafa amoon problème mu visa euh, Sénégal prescription bi xëy na bon jeexagul parce que il faut mu def dix ans léegi nag ku la wax ne gars yi duñ ko promettre dara ne ko wala del attaqué Ousmane Sonko ndax ñu lijjanti la sa dossier bi yooyu yëpp mën na nekk xam nga Fouta Tampi daf doon jaay benn euh, combat benn combat la jël jaay ko mooy combat wu Fouta bi dafa ñëw ne Fouta Tampi te Macky Sall nee na Fouta mooy titre foncier léegi nag su kenn jógee porte benn combat tuddee ko Fouta Tampi loolu baaxul ci Macky Sall. ñu mm-hmm. xam ne dof la jàngul ñu récupérer ko jox ko benn mosal ko dara buñ ko mosalee dara après voilà ne ko nag voilà mot d'ordre bi lenn la il faut insulter Ousmane Sonko del sos del créer pour Macky tamit il fait la même elle chose ndaw sa nekk États-Unis la même chose borom Kodas xam nga. ak ñeneen ak ñoom ñoom Gabriel Kane ñoom ñëpp affaire du meen quoi ñëpp xam nañ ni du meen ñoom rek un bon jour di saaga Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko mérité wul sax dugay saaga lan la def Ousmane Sonko deful dara bi mhm. jiitewul réew amul benn responsabilité boo xamante ni tey yore na ko lu dul opposant la boo xam ne il aspire à diriger le pays xam nga am programme am ci droit lool xam nga il a le droit d'être euh, ambitieux comme tout Sénégalais boo xam ne critères yi dajee na ci yow mhm. donc baax gi mu baax daal liñ xam ne bu élection ñëwee mu duma leen xam ne sénégalais yi bëgg nañ ko li ëpp ci sénégalais yi c'est la jeunesse jeunesse jox nañ ko xool jaral na leen lu nekk di ko awee na Ousmane Sonko mu sell mi lu mu def ñu salange ko bu àjjee derkese sax ñu salange ko bu toogee ci Jakarta tey gis naa ko mu toog ci Jakarta xam naa salange bi léegi mu commencé loolu nag yàlla moo koy def ci mit yàlla mooy xool ki ko neex mu jël ko ubbi xolu doomi adama yi dugal ko léegi nag soo ko naree xeexee ak violence mais du sotti mais Macky Sall violence lay xeexee gis nañ ne day utiliser doole état bi ci xeex ay nit xam nga Macky Sall ñaawteef yu mu def Sénégal kenn mënu laa wax lu mu toll dàq na fi Ousmane Sonko ci administration bi te amu ci benn droit ci Ousmane Sonko boo xam ne dafay gis ay nit di sàcc mu koy dénoncer Mamour Diallo sàcc na 94 milliards euh, Aliou Sall sàcc na 6 000 milliards suñu pétrole mu dénoncer ko ñu dàq ko ci impôt et domaine ne ko da nga am obligation de réserve obligation de réserve ba ci li nga xam ne deniers publics la nga gis ay nit di ko sàcc ñooy toog di noppi. mais loolu bokkul ci obligation de réserve boo gisee nit di def lu bon mais da koy weer. senegal goo xam ne hôpitaux yi lu yàlla xam doy na Sénégal goo xam ne capital bi am dafa am problème eau potable senegal goo xam ne ay abri provisoire moo fa am ah senegal goo xam ne courant bi doyul senegal goo xam ne jigéen ñaa ngi accouché di dee accouchement kan moo ci dee mais tubaab bi boo fi doo gis kenn ku dee ci accouchement zéro virgule nangam pour cent ngay gis amut xam nga léegi nag ay nit parce que nee nañ ñoom dañu accéder au pouvoir di jël de milliards et des milliards yu xaalisu sénégalais yi nga jël ko di ko lekk léegi Macky Sall di leen protéger di dàq ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di dénoncer di acharné wu ci seen kaw mais xam nga ne loolu dafa jéggi dayo ba tey ci seen violence bi ak seen insulte yi mais Djibril War moo fi oote wal fajiri saaga Cheikh Omar Diagne saaga jigéen ñi parce que Cheikh Omar Diagne day xeex góor jigéen ñi te ñoom dañuy jàppale góor jigéen ñi Jibril Waar ne yow Cheikh Omar Diagne su ma la gisee naa la def comme jigéen jigéen nu ñu koy def mais loolu c'est péjoratif. nu mu ko waxee noonu c'est péjoratif loolu moom ñëpp a ko naqarlu moom. mais nu mu ko waxee ne ko naa la def comme jigéen. mooy surtout nag surtout surtout nag en tant que un député de la République. kon moom dafa bëgg a wax ne jigéen lu ñaaw rek lañ ko war a def moom moo insulté toutes les femmes. mel ni moom jigéen juru ko. voilà insulté yaayam insulté ay soxnaam. insulté ñun ñii ñëpp suñu yaay ak suñu sœur ak suñu jigéen ñëpp ba pare Cheikh Omar Diagne def ne am na benn waay bu ñuy wax mbaam waar benn mbaam ji ngaaf moom tuddul turam te moom kenn nekkul rek moo sant waar. Mhm. léegi nag comme bëgg nañ jaay doole Cheikh Omar Diagne ñu ne ko léegi yow portel plainte rek comme ni ñu yàgg def rek seen justice su Macky bi boo xasee ba dugg parke rek jeex na xam nga tey boo jëlee euh, diffamation kenn du diffamation lu ñu ciy ubbee instruction mais flagrant délit la nee nit ki dafa saaga publiquement injure publique nga koy jàppee mais kooku flagrant délit nga koy yóbbu flagrant délit donc boo arrêté da nga koy ay quatre jours lañ ci teg nga yóbbu ko euh, flagrant délit atte ko lu ci ëpp sursis lañ lay tëj amende la mu jeex nga dem si yoon. Mm-hmm. mais injure publique boo xam ne dañ lay tëj téye la ne dañ ciy ubbi instruction mel ni crime te loolu du crime c'est un délit ñun jànguñu droit mais ñoom xam nañ xam nañ lu ñuy wax ne dëgg la mais ci maatay lañ nekk Macky Sall la ñuy liggéeyal ñoom kenn gënu leen violent mais euh, ki nii om euh, kii Dumburu Saw Aline Dumburu Saw taxaw na assemblée nationale menacé euh, kii Manga député bi sant Manga nu mu tuddati sax Manga quoi député bi mu mu ne ko yow suñu génnee man jaasi laa yore. suñu génnee mu dóor la ci waaw Toussaint Manga ba pare waxoon na fi ne. Euh, trois troisième candidature Macky Sall ku ko bañ na pëli jël ay jaasi jàmmaarloog yow mais loolu lan moo ko gën a ñaaw ak lan moo ko gën a bon pend ba saaga na ci olof yi mujjul fenn ñu rawale ko jox ko passeport diplomatique Macky Sall maanaam boo doon lim tey violence bi bi mu àndal ak ñi ñi ànd ak moom violence bi nekk ñoom ak saaga du jeex mën naa cee bind livre te tey mosoo gis benn membre Pastef guy saaga yow waxal membre Pastef boo xàmmee nii mu am poste de responsabilité boo xam day. ku bokk si Pastef mu am poste de responsabilité même ku bokk si Pastef sax amul poste de responsabilité. amul poste de responsabilité am carte membre yore su ma ko gis muy saaga. man ni ma gis ñuy saaga ñëpp bokkuñu si Pastef te dañuy wuyoo Pastef. man moom loolu sama passé xam ne gis na ñoo xam ne ci Macky Sall lañ bokk bokk ci bureau politique gu APR yore carte membre nekk membre actif di saaga nit ñi di leen di leen dégg. Mhm. loolu ci li ma la doon wax ne diabolisation la dama dégg benn benn benn message bu fuité mhm. message boo xam ne benn waay moo ciy wax ci benn groupe naan gars yi yu temps yi moom nice quoi mooy mooy bi ngol-ngol génnee noonu waaw mu ne gars yi mhm. liggéey baa ngi dox xoolal continuer leen saaga yi da leen saaga xoolal mhm. continuer leen di ubbi compte fictif yi di def photo Ousmane Sonko di saaga sëriñ si bu ko defee ñu ne waaw voilà bu ko defee ñu saaga kon xam na ne lii yëpp ay diabolisation la xam nga léegi Sénégal dafa am ce qu'on appelle la justice populaire justice populaire boobu ci réseaux sociaux yi la nekk bu Macky Sall euh, tegee ay injustice comme nu mu ay Omar Touré nu mu def ay Guy Marius Sagna xam nga euh, waa mafia kaj-kaj ñoom ñooy ñëw réparer injustice boobu te ñooñu ci Ousmane Sonko la ñu àndal waa kër Ousmane fu nekk nii ñoo yore Sénégal léegi lu tax réseaux sociaux yi nag di ko déranger loolu moom mooy question bi première xam nga mooy ne li bëggoon ci réseaux sociaux yi amu ko moom il a tout fait pour réseaux sociaux yi. Birima génn na fii ne Macky Sall moo ko affecté ci réseau sociaux yi te Birima c'est un insulteur. c'est un mhm. insulteur. Mhm. il insulte tout le monde. di dem jàkkaarloo xaritu euh, Macky Sall di Youssou Ndour moom moom télé ba. Birima lan lay def jàkkaarloo ban xam-xam lay wax Birima da nga kaa mos a dégg mu wax xam-xam luy jëmale réew mi kanam. Mhm. mais Birima day nekk di saaga nit ñi Macky Sall moo ko moo moo ko yebal Madiambal Diagne Macky sal moo ko yebal muy saaga Ousmane Sonko di bind euh, di def benn chronique boo xam ne tous les lundis la ci journalam boobu le quotidien di insulter Ousmane Sonko di dem faram fàcce ñu jox ko temps d'antenne muy saaga Ousmane Sonko di taxal Ousmane Sonko mission la c'est une mission te te Madiambal Diagne boobu lu ñu jàppee Cheikh Omar Diagne moom def na ko Souleymane Teliko di acharné wu ci Teliko di ko jiiñ benn xaalis boo xam ne euh, bi ñuy dem ci euh, Tchad pour dem def ay enquête magistrat yi euh, yu bokkoon ci cour spéciale bu euh, chambre africaine bi quoi chambre spéciale bu africaine bi nga xam ne moo jugé Hissène abre te teñ ubbi ko Dakar hmm. nga xam ne Hissène Habré lañ fa njëkk jugé te ko dafa bokkoon ci juge yi demoon Tchad euh, N'Djamena yu def ay enquête léegi waa Union africaine jox leen xaalis léegi nag mu tuumaal Téliko ne Téliko bi mu demee xaalis bi mu waroon dalee hôtel dalul hôtel dafa lekk xaalis ba xawma ñaata million te xaalis ba bëriwul ah yàq deram tuumaal ko di ko saaga chaque jour nan ko ay guinéen ngaat ndax sant bi rek tëli ko Sénégal bu ñu demee bay bay bay génnee nit ci Sénégal ci ay sant nga xam ne loolu c'est très dangereux te ñun zone boobu yëpp benn la woon mais bi ñoom ñoo ñëw balkan balkaniser ko ay Guinée ay Guinée Bissau ay Mali Mauritanie Sénégal yëpp benn dëkk la sant boo gis Sénégal di nga ko gis Mali gis ko Mauritanie gis ko ba Côte d'Ivoire xam nga di insulter nit ñi di leen saaga te kooku Macky lee lay liggéeyal te nëbbu ko. Mhm. léegi ñu mujj tëri ko yóbbu ko ci yoon ñu condamné ko ba pare te mu ngi nii di vaquer à ses occupations di continuer di saaga nit ñi. mu ngi saaga ba léegi amaan nañ ko cinq million tëj ko trois mois te mu ngi nii di taxawaalu ci télé yi di saaga nit te saaga yi ma jàmbal jaan di saaga lu tax Macky Sall du ko saaga yi yeneen nitam yi di saaga lu tax duñ ko dénoncé ba tey ci contre valeur yi suñ limee duñ du du jeex. Mhm. Jibril Ngom Jibril Ngom turu dafa sàccoon. liste yeewi askan bu Matam waa Matam forpuloo mu dem làqatu kër Farba Ngom. Mhm. Macky Sall ñëw di ko ci palais présidentiel. palais bi li muy dafa jéggi dayo Sénégal lay symboliser palais bi fala njiitu réewu Sénégal fa lay nekk. Mhm. palais c'est une institution. Mhm. mu recevoir fa benn lese receleur euh, moom sax mooy receleur maanaam benn receleur moom receleur bi mu recevoir fa benn voleur koo xam ne li mu def c'est un délit mu ñëw di ko encourager di ko bindal chèque ba pare jox ko xaalis ñu naan mu ñëw naan enveloppe bi xaalis la woon waaye bi moom laa duggaale ci palais bi palais kenn du fa duggee ak mbuus kenn du fa duggee ak enveloppe kenn du fa duggee ak sac parce que mën nga assassiner président bi. pour mesure de sécurité palais sa portable palais de la république boo fa bi. ñoom ñoo yore sécurité palais bi. Mhm. te sa bi ngay wuyoo nii doo dugg moom si biir palais. voilà pour mesure de sécurité léegi nag. kon xam nañ ne mbuus googu noonu Macky moo ko décoré parce que Yewwi Askan moo nekk problème ku leen def lu bon sax président bi ci boppam moom moo lay félicité gis nga góor jigéen bi mu dal démb palais mooy Soro doomu George Soros waaw ñëpp xam nañ ne kooku góor jigéen te il fait la promotion de des góor jigéen yaa ngi comprendre mu recevoir ko si suñu palais xam nga boo limee daal da ngay jóg te li bu Boubacar Camara wax rek Boubacar Camara nee na sa waay heure bu recevoir yi les contre-valeurs rek <laughs> les contre-valeurs dafay day photo wu quoi nee na na bàyyi photo wu yi quoi. macha allah waxtaan bi am na solo lool xam naa dañ koy tëjee fi nga xamante ne ba léegi rek lu jëm si mbirum actualité la muy fin de la semaine bi nga xamante ne gisaat nañ ko si actualité bi euh, bokk na si li si gën a fës ñu tëjee foofu waxtaan bi ndax émission bi am na solo lool xam naa dinañ la danalaat beneen yoon incha allah fi may tëjee ak yow muy lu jëm si mbirum troisième mandat bi Macky Sall yëkkatiwaat na ay kàddu mais bi yoon waxul si turu Sénégal mais Afrique la waxal continent africain nee na troisième mandat day perturber ki nga xamante ne muy jiitum réew ndax du ko mën a yeggali du ko mën a may mu yeggali yenn projet mi mbirum troisième mandat Macky Sall kàddu yum si yëkkati yan jàngat nga si am. j'ai honte dama rus. billahi man ñun mérito wuñ lii quoi Sénégal un président comme ça quoi un président boo xam ne day wax mu dëñ un président buy wor mais li c'est c'est de la haute trahison man nii laa ko mën a tuddee mais Macky Sall Abdoulaye bi dafa am benn constitution boo xam ne moo ko fal muy constitution 1963 trois ans après notre accession à la souveraineté internationale bu ñu amee indépendance Ablaye Wade constitution boobu moo ko fal te boobu sept nga doon falo te amutoon limitation de mandat mandat bi sept ans la woon mm-hmm. amutoon limitation de mandat mm-hmm. Wade bi mu ñëwee ñu soxla une vraie rupture une vraie alternance une véritable alternance quoi daf na léegi nañ dem euh, référendum 2001 ñu dem élection référendum 2001 mu ne léegi mm-hmm. mandat bi dañ koy bloqué ci deux deux de cinq ans léegi nag un an après bu mu faloo la Ablaye Wade mu ne bi fal nag bokk ci à partir de bu ñu defee référendum bi la foofu lay commencé xam nga loolu sax mën na am werante quoi ñu ne ah Abdoulaye Wade am na droit def ko wala amul droit def si su doon man moralement du ma ko def te ñu bari ñu doon wax na Abdoulaye Wade war ko def sax ci côté moral sax lañ doon wax quoi xam nga léegi nag Macky Sall ànd ak Abdoulaye Wade di liggéey di liggéey di liggéey def huit ans ci gouvernement Abdoulaye Wade joteeg Abdoulaye Wade ci Karim Wade mi mu owoon ni ko ñëwal nationale nga leeral loolu àndoon naa parce que ku yore xaalisu Sénégal da ko war a leeral devant les parlementaires wala devant le parlement léegi nag bi mu amee Ablaye Wade problème dem ci opposition bi créé parti mais da doon xeex moom troisième candidature Ablaye Wade mu jaral ko lu nekk. Mhm. yaa ngi dégg Modou. ñu ngi lay dégg bu baax. Macky Sall man dajee naag moom sur le terrain buntu assemblée nationale ci 23 juin bi ñëw naa nii je l'ai serré la main man ak benn sëtu Baye Niass bu tudd Baye Mbaye Niass. Mhm. bu ñuy dor door grenade lacrymogène ba mu Niass di daanu bi xam ñu dugal ko kër Cheikh Ousmane Diagne papaay jor Diagne en face assemblée nationale c'était devant moi. Mhm. léegi nag Macky Sall boobu bi mu faloo en 2012. Mhm. mu ne daal problème mu mandat bi daal day indi problème quoi il faut que ñu régler ko une bonne fois pour tout. Mhm. mu convoqué ñu ci benn référendum mars 2016. Mhm. léegi nag man mi bokkoon naa si ñu voté non ak ay mouvement Y'en a ak yenn mouvement yu nekk société civile beeg yooyu noonu ak activistes yi ñu ne jaru ko parce que di yóbbu nit ñi référendum di organiser ay élection di imprimer ay papier def ay affiche ay publicité yàq xaalis la. na ko jaarale assemblée nationale wala mu xool beneen voie bu ko mën a jaarale ndeke boobu am na yeneen yum dëxañ ci biir pour bëgg a def yëfu saay-saay quoi yëfu njuuj njaaj ba noo bi tuuti mu gañe te te wii bi li mu gagné de gis nga référendum dafa war a plébiscité maanaam dafa war a dem ba quatre-vingt-dix-huit pour cent Abdoulaye Wade référendum bi mu woon euh, en deux mille un demoon na ba quatre-vingt-dix-huit pour cent des Sénégalais wii lañu te Macky Sall référendum bi est cinquante et quelques pour cent rek ñoo wax oui te dafa wàcc ci battre campagne bi nga bi da ci battre campagne parce que dafa naroon a échec xam nga président bu falu 2012 13 14 15 16 après nga organiser ay référendum ñu ne la non xam nga loolu gàcc la mm-hmm. bi mu dalee David Cameron Angleterre premier ministre Angleterre bi nga xamante ni moom la kii remplacé ni euh, Boris Johnson mm-hmm. mais dafa démissionné David Cameron àndutoon ci Brexit bi mooy euh, Angleterre génn ci Union européenne bi après dafa démissionné Macky Sall loolu bu ko daloon xañ na sax bu démissionné mais xañ na parce que ñun amuñ culture démission mais loolu gàcce lay doon ci moom moo tax mu wàcc battre campagne man si moment boobu doon naa dem Kaolack jidlanteeg moom ba jaxaw boobu yoonu Fatick Kaolack bi dafa yàqu. ma mhm. dem def contournement bi génnee euh, jaxaaw dem Gossas après continuer. ni nii laa jidlante ak seen cortège bi muy def campagne moom Macky Sall di wax na gars yi voté oui léegi bu ñu voté oui ba pare lan la def ci article vingt sept bi mhm. le mandat présidentiel est de cinq ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs gis nga su ñu waxee nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mooy kenn manta am lu ëpp ñaari mandat yu teglanto préciser wuñ ay mandat wu cinq ans ay mandat wu sept ans te pourtant waa ji bi mu koy def il de bonne foi laaj nañ ko ci élection avant élection deux mille dix neuf bi mu ne moom ñu laaj ko ci affaire yi mandat bi quoi mu ne non loolu man maa ko voté lu ah en deux mille seize man mu ko voté lu kañ mooy ne respecté naa sama kàddu. Mhm. man manda bii ma nekk deux mille douze ba deux mille dix mooy sama premier manda mais suñ ma falaatee après damay am deuxième manda et dernier. Mhm. loolu kañ jeex moom moo ko waxoon de mu leer nañ ba pare bind ko ci benn livre bu tudd Sénégal au cœur Sénégal ci xool bi. Mhm. wax ko ci rencontre yu solennel yu bëri. léegi nag ñu dem ba mu yàgg ba mu am deuxième mandat nag ginaaw bi mu sàccee élection yi en deux mille dix neuf. Mhm. jaay doole mu commencé nag mu commencé changer discours. Mhm. parce que xam ne nguur gi mu ngi waaj a jeex xam nga Macky Sall lan mooy problème Macky Sall nekkatul président de la république maanaam moom boo àndeeg moom nii sax nga jege ko comme ay ñoom Amadou Ba ay ñoom Mimi Touré boo amee ambi ambition présidentielle mu dàq la soxlawul borom xam-xam soxlawul ku am popularité ku nit ñi bëgg non non moom il ne pas populaire mais kenn du populaire ci côté bëggul ku ko remplacer. Mhm. ñu ànd ak moom rek xoolal ñi ko jege woon ñëpp ñoom Matar Cissé ñoom euh, Omar Youm Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba ñëpp la dàq. ay Mimi Touré parce que dañoo am ay ambition présidentielle dafa soxor léegi problème am mooy génn palais ba ak ñeneen ñi ko wër mooy trotskiste yi mooy xam nga xaamaan mhm. koy conseil yu bon yooyu yëpp inna firawna wa xaamaana wa wa junuduhuma kaanu xaatiin <laughs> firawna ak xaamaan ak armem ba nekk nañ ay def dafkati ñaawteef loolu ci lañ nekk ñooñu nag bandam boobu ñoo koy wër ak say transhumants de merde la nga baal ma ci wax ji sax. Mhm. ñooñu tey ñoo ñëw wër ko gëmloo ko ne ko yow yaa fi war a nekk. parce que xam nañ ne bu Ousmane Sonko ñëwee saa ñoom jeex na te ñoom ñëpp dañoo sàcc xaalis Macky Sall di leen protéger léegi nag ñooñu ñoo koy gëmloo na ko ñun waruñoo jógee ci bopp nguur gi dañ fay war a toog. nguur gi waruñu kaa jox Ousmane sonk pétrole baa ngi nii feeñ dañ ko yaa ko war a exploiter gaz bi lu tax nga koy bàyyi Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul expérience te bu falo daf ñuy tëj ci kaso bi. Mm-hmm. loolu moo tax nag tous les moyens sont pour mu des fi te wóoluwut euh, te iñaanee na ku ko donn maanaam dafa iñaanee ndonoom li olof di wax naan ku iñaanee sa ndono sa deewin dafay ñaaw loolu loolu moo tax nag ñu bëgg a accroché wu ci pouvoir bi ne dina toog par force mais loolu sénégalais yi duñ ko nangu. Mm-hmm. sénégalais yi ñoo bëggatul Macky Sall léegi maanaam yow boo faralee Macky Sall sax yow yow da am ay ennemis léegi boo toogee sa di plaidel Macky Sall ci. télé bi yow tu te fais des ennemis xoolal Oustaz Modou Fall bi ñuy toog naan Macky Sall laa àndal comme naqari nga dem ba euh, Éthiopie nga dëkk fa wala nga dee ci benn arrogance boo xam ne kenn mënu la kaa wax arrogance mutuwaar reewaande yoo xam ne kenn mënu la kaa wax. Hmm. gis nga Sénégalais yi ni ko réglé seen bopp. Hmm. ñëpp a génn di naqarlu affaire bi naan ay première dame jox na ma suukaru koor man li mu ma jox ci suukaru koor xam nga suukaru koor première dame moom mën naa cee or ay ati ati ati at ak benn xamat yi ak benn arrogance loolu kan moo leen ko jàngal mais Macky moom moo tax ñu mel noonu moo tax ñu fuuy. Mhm. léegi nag genre nit yooyu noonu ñu ci ëpp ñoo xamante ni kenn xamu leen sax te ñu ngi bénéficié wu ci système bi te nanguwuñoo liggéey nanguwuñ sonn ñoom ñoo bëggul Macky Sall jógee fi. parce que seen ceeb ci Macky Sall lay tooyee mooy deretu baa doole bi mooy siim cere buur dañuy nekk di ko muucu. di mhm. suusee suñu sang suñu xale yi di dugg ci gaal yi di liggéey amul pauvreté bi dafa extrême au Sénégal xam dara doxul Sénégal extrême pauvreté moo fa am bala ñoo dee ñuy génnee ay taleeg ay corniche beeg ay xawma immeuble yu ñu tabax jëm ñaajoog ay pont mais loolu mooy mooy lool sénégalais dañ koy lekk TR sénégalais dañoo am xaalis bu ñu jógee TR mhm. bala ngaa def yooyu yëpp kañ yow defal lu tax nit ñi mën a dund dund ku baax nit ñi nañ mën a lekk nañ mën a naan nañ feebar faju nañ am ay hôpitaux yu baax nañ mën a jàng-jàng bu mucc ay ku nekk bu weer dee nga mën a am astour soo xam ne di nga ci mën a sax def le mani minimum faj sa ay besoin subvenir à at besoins waa ji daal il n'est pas indispensable li nit ñi doon ruuma ndaat naan du ma wax wi du ma wax non mujj na ko euh, mujj na ko avoué ba muy wax naan affaire troisième euh, ay limitation des mandats xam nga loolu c'est c'est de la haute trahison yow constitution bi mënoo ñëw nga ne da def révision constitutionnelle limiter mandat bi ci cinq ans day indi problème wax ko ci rencontre yi solennelle yëpp bind ko ci sa livre xam nga yooyu sax bu amutoon yow yow yaay kan ba war fee toog yow kenn pour la mais affaire bi nul n'est indispensable Modou Mbaye day ñëw def li man mën dem Hadj Abdallah ñëw def lu man dem keneen ñëw c'est la continuité Mhm. mais mënoo nekk rek ne yow yaa war a nekk am na ay nit ñu koy jaay ah, naan ko yow li fi def ken def ko fi li nga fi def kenn def ko fi mooy ay taleeg <laughs> ay pont mais loolu moo gën a yomb loolu man mën naa ko mhm. su ma nekkoon président loolu moo gën a tuuti ci réalisation bu président dem ci ay fonds ñu lebal la xaalis nga ñëw tabax après léegi ñun bu ñu amee ay pont yu rafet am ay tali yu rafet même bu doon ay tali jamaa yeeg. Sénégal de Sénégal pour te dire tali bi fi gën a am doole mu doon autoroute da ngay loolu Sénégal moom a bëgg. waaw ba pare da ngay boo si jaaree. boo fay jaar da ngay fay même bu tabaxoon ay immeuble jamaa. moomaguñ ko de loolu moomaguñ ko bu tabaxoon ay immeuble jamaa tabax ay pont wu jamaa yeeg ay tali jamaa. Mhm. ñaari mandat lañ digaale ak moom. loolu mooy indi stabilité ci dëkk dëkk yu tàkk yëpp affaire ay. président bu bëgg éterniser wu ci pouvoir bi mooy tax rébellion yi di créé wu mais rébellion yu am ay Congo am ay ci sous-région bi ay ci euh, fële nu mu tuddati Tchad yàgg ci pouvoir Idriss bi dafa yàggoon ci pouvoir gis nga fu dañ ko rey. Mm-hmm. Idriss euh, kii nii euh, El Bachir bu Soudan yàgg ci pouvoir moo tax rébellion am foofu noonu bañ xaaj Soudan en 2011 Soudan dañ ko xaaj 2011 dañ ko xaaj. Afrique cinquante trois états la woon. léegi bi ñu indee Soudan du Sud mu nekk cinquante quatre états fu mu nekk nii. Mhm. loolu moo ko indi. lan moo indi coup d'état yi ay Burkina Faso lan moo indi coup d'état yi ay Mali. comme yi Macky Sall di def nii rek. Mhm. ay Mauritanie. guerre civile yi am ay Libéria yeeg ay Guinée Bissau ay fune ay Congo. loolu rek moo ko indi gis nga dëkk lu koy lu koy lu indi stabilité foofu mooy. démocratie bu dëgër ñu xam ne ci république lañ nekk. Mhm. boo ñëwee nga def sa ñaari mandat nga dem boo defee benn mandat renouvelé wuñ ko nga xam ne kat ñii ñoo ma wóolu woon benn mandat lañ ma jox nga dem sa yoon. Goodluck Jonathan nekk na fi président wu Nigéria ginnaaw bu nekkee vice président bu Umaru Yar'Adua nekkoon président Nigéria bi remplacé woon Olusegun Obasanjo. dafa amee woon cancer dem Arabie Saoudite wóolu wutoon dem ci tubaab bi bi demee foofu mu gaañu. vice président bi gérer transition bi intérim mu gérer ko léegi nag ñu organiser élection mu bokk ci gagné élection yi mooy Goodluck tam mais bi élection yi jotee te Nigéria quatre ans la de comme fële comme euh, États-Unis bi élection yi jotee dafa organiser des élections libres et transparentes Buhari bi nekkoon président 82 ñëwaat bokk ci élection yi gagné ko coow jubul ba tàkku Nigéria amatul ay affaire ay problème ay ay ay ay tension politique ay tension électorale wala ay crise électorale gana même chose Ghana am na seen benn président bu tudd euh, John Atta Mills mhm. benn mandat la mooy Nano Addo euh, kii Nano Addo bii nii moo ko remplace Nano Addo moom mooy sax actuellement président de l'Union africaine non non attends pour moi CEDEAO kon Union africaine Macky Sall moo ko jiite mhm. Cap Vert ñu nag ñoom ñoo dend est-ce que dégg nga leen ñuy am ay crise électorale te ñu nag Cap Vert rek ñoo masta am coup d'état ci Afrique de l'Ouest Cap Vert xool élection day jot ñu organiser élection yi coow doo dégg affaire yi fichier électoral ay jotuma sama carte ah dépassé nañ ko Ghana tamit dépassé nañ loolu bu yàgg mais Sénégal rek ngay gisee ay président boo xam ne Macky Sall bi mu ñëwee tey dafa waroon na li li jàll yëpp dañ ko waroon dépassé mooy affaire crise électorale ay tension électorale ay fichier électoral ah ay élection yu leerul ay bañ a jox nit ñi seen carte carte électeur France boo amee dix huit ans sa carte électeur da ngay yeewu rek benn jour ubbi sa boîte aux lettres fekk ko fa ak programme candidat yi bu élection jotee nga xool candidat bu la doy lire seen seen programme nga votel leen amul werante amul xeex amul dara mais Macky dafa delloo ginnaaw Sénégal pour ses propres intérêts bëgg nguur bëgg prestige ay honneur loolu moo tax mu bëgg a accroché wu ci pouvoir bi mais loolu bés bu ko defee dina taal Sénégal te nag maa ngi lancé appel autorité religieuse yëpp ñu ci noppi bëri nañ ñu ngi koy bàyyi ñu ngi déroulé di def lu ko neex am na ñoo xam ne amuñ benn courage pour wax parce que xalaat nañ ne bu ñu waxee Macky xañ leen ay avantage ay privilèges hmm. ñoom ay représentant euh, yàlla lañ ci kaw suuf comme lu yàlla waxoon yonent yàlla daawuda na ko yaa daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard faxkum bayna naas bil xaq wala tattabi' al hawa wa yudilluka an sabilillah loolu mooy al ulama warasatul anbiya dañoo doon yonent buñ fi nekk sax di seetaan waa ji muy taal réew mi ñoom réew mi moo leen war a gënal waa ji mhm. waa ji du nitu dara bànneexu bakkanam rek la topp li alxuraan di na ne wa tabaa mooy dañoo topp seen bànneexu bakkan rek ñoom luñ jàppee nguur mooy dañuy servir ci réew mi mais duñ servir réew mi jàppee wuñ ko sacerdoce mhm. te Sénégal nag dañ ka daf ñoo war a gënal ñun suñ jëmm yi gënal ñu képp kuy dund ndax ñu mën a bàyyil suñu ay doom Sénégal bu ñoŋ Sénégal bu am stabilité am jàmm comme ni mu mas amee jàmm. Mhm. mais intérêt benn groupe boo xam ne matuñ sax mille personnes nekk au sommet de l'État ne duñ bàcc nguur gi naan ay kii du fi nekkee candidat yeeg kii dañ koy recalé kii du fi tekkee lii di saaga nit ñi jàpp nit ñi tëj kaso ah. bu élection jotee doo ko organiser à temps respecté au calendrier électoral bi. Mhm. élection yi bu ñëwee nga def ay njuj njaaj pour sàcc ko foqarit ñi électorat wu nit ñi par force ne yow nit ñi danañ la voter par force wala yow da ngaa war a voter Ousmane Sonko doo fi voter loolu day taal réew te gis nga mois de mars bi nii war nañ see jàng ba bëri Macky Sall nag ci dara de ay nitam nag ñoo koy nekk di ko jay naan ko non bul reculer bul wane ne événement mars yi daf la jàpp wala da ngaa ragal ak yooyu noonu xam nga chaque jour del menacer del tàngal xam nga récemment génn na fi di menacer ci ay réseaux sociaux te un président ne doit pas être comme ça di menacer son peuple di wax di gëdd nit ñi defoon na ko ci vaccin yi naan su ko bëggul ma yóbbul ko ñeneen mel ni moom moom moom réew mi quoi <laughs> xam nga voilà di persécuter nit ñi ku ànd ak Ousmane Sonko ñu jàpp ne yow criminel nga di le persécuter man am na ñu bëri ñoo xamante ni mere nañ ma ndax Ousmane Sonko. Mhm. mel ni bëgg Ousmane Sonko moom dafa xaraam moom ci ci ci ci àdduna bi wala ci Sénégal. Mhm. gëmloo nit ñi ne Ousmane Sonko ku bon la Ousmane Sonko dafa violent te moom moo lépp bépp acte violence bu fi am bépp violence bu fi am ci Macky sal la jógee affaire Adji Sarr bi affaire yeneen ak yeneen lépp ci Macky Sall la jógee ba suñu quatorze xale dee ci mm-hmm. ay nitam ñoo dem teg Ousmane Sonko deal parce que Ousmane Sonko dafa jiiñ Mamour Diallo quatre-vingt-quatorze milliards te loolu dëgg la mm-hmm. ñu war ko leeral créer seen benn commission d'enquête setal Mamour Diallo créer Mamour Diallo 94 milliards yooyu ñu ko jiñ métti ko xam nga mu ne day venger wu ci Ousmane Sonko ba taal dëkk bi nag moom ñu àndal Macky Sall xam ne loolu dil la ci ciy profité na dina jàpp Ousmane Sonko ba suñu ay doom dee ubbi wuñ enquête ñu suul leen dafuñ autopsie indemniser wul famille loolu yëpp ngir nguur te loolu yëpp bëgg nguur rek moo ko yóbbee loolu. Mhm. kullu man alayha fanin lu dul jeex amul dafay jeex ci nii wala mu jeex ci naa. te gis nga dynamique bi mu jël nii ne day forcer pour toog ci réew mi par force te amu ci droit. Mm. billaahi Sénégal yi duñ ko nangu. Sénégalu démb ga ak léegi c'est diamétralement opposé. Mm-hmm. xale yi duñ nangu te dinañ wàcc ci mbedd te bu ci ay nit dee dinañ ko yóbbu cour pénal international CPI àtte ko pour crime contre l'humanité. Mm-hmm. te maa ngi lancé appel sénégalais yi nañ jël seen responsabilité surtout ñu am kàddu ci dëkk ba Macky Sall du yàlla du yonantu. sëriñ si nañ wax dëgg nañ waxanteeg Macky Sall dëgg na respecté Sénégalais yi respecté lu nekk ci constitution bi ñaari mandat la am droit am bu jeexee dafa war a dem ut mm-hmm. candidat teg ko mm-hmm. organiser des élections libres et transparentes ku gagné ñu jox la réew mi parce que sénégalais yi ñooy tànn kenn du leen tànnal moom sénégalais dañ ko tànn au détriment de Ablaye Wade sénégalais yi tànn ko te Ablaye Wade moom moo ko moo ko formé def ci moom lépp Abdoulaye bi moo tax sénégalais xam ko. te Abdoulaye Wade mi ñu koy jox réew mi réew bu stable la ko jox. oo ko félicité ko nangu euh, euh, defetam gis nga Sénégal kenn moom kenn amul droit ne Sénégal man kenn maa fi toog ba doyal teg fi sama nit wala nga naan kii du fi nekkee lii kii du fi nekkee lële Sénégalais yi ñooy xool ku leen neex ñu tànn ko Sénégalais yi ils sont libres de choisir qu'ils veulent Mm-hmm. kuñ bëg suñ bëggee yaawu jaal sax yaawu jaal bu ñëwee nañ ko fal. Mm-hmm. su dee Ouzin lañ bëgg a def président seen droit la. c'est un pays de droit c'est un pays de démocratie. Mm-hmm. te Macky Sall il devient un danger pour le Sénégal parce que il menace l' stabilité du pays. te nag maa ngi lancé appel borom kàddu yëpp nañ jël seen responsabilité ñu wax maa ngi dégg oustaz Lamine Dramé bu nekk 2S wax na wax bu am solo nee na jàngkatu diine yi ñu si bëri dañoo démissionné fu mu nekk nii ku nekk ragal ngaa wax bala ñoo dégg nga naan ay dema see neutre ba ci affaire suite bote bi sax mu ngi koy nettali ci l'islam ba naan day dégg ay jàngkatu diine yoo xam ne dañ naan man fekke wu sama yoon nekk ci xaw ma lu fa xew nee soo waxee loolu yaa ngi semi loolu yëpp ragal Macky Sall mere leen parce que moo yoon parce que mooy yore nguur gi mooy joxe engrais yi mooy joxe jiwu yi mooy joxe enveloppe yi ci gàmmu yeeg ci ziare yi di ger ni ñi te xaalis boobu mu leen di jox xaalisu nit ñi la. Mhm. xaalis bu nit ñi war a amee ay hôpitaux yu baax xaalis bu nit ñi war a amee ay écoles yu baax ay université am ndox mu doy am courant bu doy am ay tali yu baax moom lay jël di leen ko jox mooy l'argent du contribuable mooy xaalis bi nga xam ne moo Modou mbay tey fauteuil bi mu toog bi mu ko jëndee fay na TVA t-shirt am bi mu sol fay na TVA. Mhm. su fekkee dafa am entreprise dafay fay impôt keneen kuy liggéey moom it day fay impôt sur le salaire ku ubbi magasin yam day fay ay patente ku jëndal doomam tàngal ci boutique bi ni ne TVA ku jëndal doomam bal wala nga jënd saako ceeb fay nga TVA xaalis boobu lañ dajale jox ko Macky Sall mu ci ger nit ñi di di def du n'importe quoi Macky il faut ñu freiné ko xamal ko ne ko lu dul jeex amul gis nga nekk président douze ans mais loolu kum doyul yow xanaa doo nit. Mhm. sept ans ak cinq ans nga jiite réew mi di nommé à tous les postes civils et militaires am avion am palais présidentiel. boo yoree sa cortège sa gyrophare bu rombee ci kaw tali bi ñu wàcc tali bi abal la parce que yow yaay président de la république. Mhm. mais loolu ku ko nekk une semaine sax war a sant yàlla yàlla nee na wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla bu la defalee xéewal da koy sant ni nga koy santee mooy nga doylu. ñaata sénégalais ñoo nekk Sénégal <laughs> te mosu ñoo nekk sax directeur général gën kaa jàng ëpp ko xam-xam moom est-ce que moo ëpp xam-xam Sénégal est-ce que moo gën nit ñi tànnuñ ko ci juddu tànnuñ ko ci am-am sénégalais yi ñoo ne kii moo ñu doy pour remplacer Abdoulaye Wade ñu fal ko mais dafa war a am ngor delloo Sénégal euh, njukkal nit dund na ba dee masul nekk chef de quartier. yow ci es issu d'une famille très pauvre modeste comme la mienne ñu jël la fal la mhm. président de la république chef suprême des armées nga nekk ko nga narkaa nekk douze ans instant bi def ne dix ans bu ñu nee ba deux mille vingt quatre day def douze ans mais loolu doyul nga il faut daal yow nga génn par la petite porte quoi doo génn par la grande porte te li gënoon a yomb mooy nga def sa ñaari mandat dem dëkk sa kër Mermoz léeg-léeg nga génn dem defi sa course ci Auchan wala beneen grande surface nit ñi di la romb di la félicité di la di photo ak yow kontaan comme Jerry Rawlen bu bu nekkoon Gana tam génn àdduna mm-hmm. Gana la nekk ci mbedd mi di dox nit ñi di ko photo ak moom bëgg ko bu bëgg dee demul États-Unis dëkk fa damul France dëkk fa demul Canada demul Angleterre mm-hmm. mais loolu dafa neex nit da ngay gore ah. xam nga yàlla dafa wax lu am solo. wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi gis nga sant boo santee sant gi nga sant sa bopp nga sant quoi. Mm-hmm. xam nga la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid mm-hmm. boo santee yàlla da lay dolli mais boo weddee yàlla mbugal la mbugal bu tar. dëgg la. te sant yàlla mënti weesu yàlla def la président dëkk boo xam ne 17 million nit ñoo fa nekk ñu tànn la na yow yaa président. nga ànd ak sa benn groupe ñu lay jay nan la yow yaa fi gën doo moromu nit ñi li nga fi def kenn def ko fi mais après même boo fi defee lu kenn deful yow ñaari mandat lañ digaale ak yow mais jeex na jeex na. Mm-hmm. mais nga ne daal doo bàyyi. ndax ay honneur mais loolu jikko baa doole la. Mhm. kon daal Sénégal yi leen di lancer appel bu nangu dëkk bi benn nit ñëw bëgg ko def royaume bëgg ko def moomeelu boppam Sénégal kenn moomu da ngay ñëw indi sa programme ne Sénégalais yi lii mooy sama programme maa bëgg ngeen fal suñ la wóoloo ñu fal la buñ la falee benn mandat bu jeexee ñu renouveler la suñ la renouveler nga xam ne doyatoo leen. jàmm nañ ñooy loolu rek moo mën a indi ci dëkk ba lu ko mooy billahi wallahi watallahi bu fa Macky Sall forcé ne day toog dëkk bi dina tàkk parce que nit ñi ñoo ko bëggatul te wan nañ ko ko Macky Sall tey bu nekkoon ku gore dëgg ku noon benn mandaalay lay am parce que 2019 élection yi jaarul yoon daf ko sàcc senegal yi bàyyi mu sedd waxuñ ko dara mm-hmm. na am ngor te nit ñi nañ jël seen courage alalu àdduna jarul yenn yi alal ji leen di jox du alalam alalu sénégalais yi la nañ am courage wax dëgg te yàlla tax am na nag ay nit ñoo xam ne ils sont am na benn paa bu nekk Louga sëñ Momar Diagne xam mm-hmm. sëñ Momar Diagne tam nekk Louga. am naa ko waaw. paa boobu nitu diine rek jàng na tubaab tamit mais xoolal pourtant est-ce que am na boo gisee xam ne amul lu na gaañ mais mu ngi sant yàlla daaraam la yore foofu noonu nekk ci këram mais day def ay vidéo Mhm. di wax dëgg bu nit jalgatee ci dëkk bi mu génn moo xam nga nekk sëriñ ak loo manti nekk nga nekk politicien day am courage génn wax dañ koy sax menacé moom mhm. mais am na ñoo xam ne ñemewu ñoo wax ñoom dañuy noppi ah doy na waar Abdallah mbégte la woon ñu dalal la si ASID TV xam naa ne jotaay bi yaatu na lool di la sant di la gërëm si sa taxawaay mais balaa ñu lay bàyyi sa kàddu tàggatoo rek Euh, dañuy sant ñi nga xamante ne ñun ñuy saxoo di seetaan di leen fàttali ngeen abonné si chaîne bi euh, te ngeen activé cloche de notification boobu ngeen di seen si seen écran ngir saay su ne lépp loo xam ne xibaar la bàyyeeko fii si réewu Sénégal di actualité ngeen koy mun di ko taataan si seen seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes euh, di sant les sénégalais de la diaspora ndax ASID TV buñ ko tuddee rek tudd nañ kalaasu Abdallah yi nga xamante ne ñi nga sa réew ñoom ñi nga xamante ne yàgg nañu soutenir seen bi di ASID TV ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ak patriotes yi nga xam ne ak tous les sénégalais de la diaspora yi nga xamante ne ñi ngi nekk foofu sa bitim réew ah, di sant di gërëm suñu sëriñ bi nga xamante ne daanaka mi ñuy taxaw bu baax tamit ah, di ñu taxaw di ñu sànni ñaan di ñu jàppale kooku nga xamante ni wax alaaji Moussa moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ku lim jum daal ñoom béti ñoom ñëpp Abdallah ak ki nga xam ne muy Babacar Sadikh ñoom Assane Diagne OSR Monde ku baax ndeysaan ñu koy nuyu di ko ziar au passage moom tamit mi ngi soutenir seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes yom Issa Dieng yom Gabriel ak ki nga xamante ne muy euh, Jean Émile Koulim Dioum ak ki nga xam ne daanaka moom dañ koy safoo di ko bégee saay su ne muy euh, ki nga xam ne muy ball Balla Moussa Fofana bokk na si ñi nga xam ne dañuy safoo di seetaan di bégee seen bi di ASID TV ndax moom xam-xamam ñëw na fii nga xam ne euh, jot nañ ko taataan si seen bi di ASID TV ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di sant kilifa diine yi waa kër Cheikh Ibrahima Fall ku ci mel ni Serigne Djili Fall mu Serigne Abdoulaye Fall Ndar euh, mu Serigne Moxtaala Fall moom tamit daanaka day safoo chaîne bi di ko déggee bu baax a baax a baax ak ki nga xam ne muy euh, euh, Serigne Mbacke Bousso moom tamit doon si ñi nga xam ne njaboot Serigne Touba la moom tamit day suivre seen bi di ko saxoo di ko bégee bu baax a baax a baax lii nag musuñu ko def mais mënta ñàkk ñu def ko parce que tamit ku la yëg rek moo la sonal dañuy jot ay message WhatsApp fu nekk international ak national fii si Sénégal yëpp ñu ñuy remercier di wax ne taxawaay bi rafet na lool di sant di gërëm ñëpp seen taxawaay lu ñu fàtte ñi nga xam ne tamit muy waa les plateaux patriotes africains sénégalais ñoom tamit ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm ma bàyyi la ak sa kàddu tàggatoo di wax ne beneen yoon di dinañ la fi dalalaat parce que waxtaan bi yaatu na lool dinañ la fi dalalaat waxtaan ak yow ci leneen ci mbirum actualité ma bàyyi la sa kàddu tàggatoo. man daal li may tàggatoo mooy euh, damay insister rek ci nitu diine yi nekk Sénégal. ñu jëfandikoo xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. man raa minkum munkaran fal yuxayiru bi yadi wa in lam tastati fa bi lisaani wa in lam mm-hmm. tastati fa bi qalbi wa zalika adfaul iman na soo gisee ñaawteef da nga koy dindi ak sa loxo mm-hmm. soo ko mënul nga dindi ko ak sa làmmiñ soo ko mënul nga ko sa te gis nga sëriñ si nekk Sénégal am na rôle boo xamante ni tey war nañ ko jouer ci Sénégal mhm. mooy nañ sauver Sénégal parce que Sénégal kat liy raam ci ñag bi la jëm waa ji nguur jaral na ko lu nekk moom ñoom àndal ay nitu seytaane lañ ay nitu fitna lañ te seen bànneexu bakkan warul tax ñu leen di seetaan Sénégal gii dañ ko war a préserver jàmm ju fa nekk pour suñu ay njaboot suñu ay sët sëtaat parce que Sénégal exemple la ci àdduna bi ah Macky Sall waruñ ko permettre muy taal Sénégal Mhm. loolu daal laa amoon lu may tàggoo élection législative yi tamit na ñëpp jël seen responsabilité. Mhm. bu jaaree yoon moom Yewwi Askan Wi day gagné. parce que mooy coalition boo xam ne nit ñi dañ cee gis seen bopp te c'est la coalition qui fait peur au président de la République ba tax na sax am na ay soi-disant ay euh, nu mu tuddati ay opposants yoo xam ne moo nekk seen ginnaaw sax di leen financer pour ñu ñëw di contre Yewwi Askan Wi di attaquer Ousmane parce que xam nañ ne Yewwi Askan Wi c'est Ousmane waa Yewwi Askan Wi tamit li ma leen di conseil mooy nañ préparer ñu wàcc ci terrain bi quoi bés buñ tollee ci campagne bi Ousmane Sonko na sillonné tout le Sénégal hmm. département yi parce que Macky Sall fu nekk nii ci àll bi foofu lay miser ah parce que waa àll bi daneen di naax yeewuwuñ ñu bëri hmm. ñoom xam nga xam ku nekk président rek yow pour ñoom yow lañu war a voter xamuñ li xew te da leen di ger xam nga waa àll bi yeewu leen mbay mi doxul càmm doxul sonn ngeen amuleen courant am na village yoo xam ne amul poste de de santé seen jigéen ñaa ngi accouché ci ay charrette di dee am na seen dëkk yoo xam ne amul tali ay ran-ran moo fa am am dëkk yoo xam ne ay ravin moo fa am ay cour cour pour nga traverser dëkk ak dëkk son problème Sénégal am na village yu reculé yo xam ne au fin fond du pays duñ gis oto xamuñ lan mooy oto dañuy dégg dëkk ville yi nii rek ay Kaolack ay Dakar ak ay Saint-Louis ak Ziguinchor xam lan mooy ville te loolu c'est catastrophique dañ leen a abandonné dañ leen di marginaliser defuñ dara ci àll bi bu ñu leen soxlaa lañu ñëw utiliser leen pour seen ay euh, voix ngeen voté leen su ngeen leen voté ba pare ñu jàmbu leen kon yeewu leen léegi nag dëkk àll boo dem di nga fa gis sax ñaari étudiant wala benn étudiant boo xam dina yeewu yéen étudiants yi dëkk ci village yi reculé yi dem leen ngeen sensibiliser seen mbok yi waa àll bi nañ yeewu parce que instant bi dafay miser ci àll bi parce que raw gàdd bi moo tax bokkul ak liste nationale mhm. proportionnelle bi mhm. léegi moom ci raw gàddu bi lay miser te àll bi yeewoo guñ ci affaire ay ku affaire réew mi ni muy doxee yooyu quoi ñoom soo xasee ba nekk président rek jeex na yow la ñuy bëgg yow la ñuy voté te loolu depuis temps yi Senghor la ba léegi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy gërëm ñu ngi doon setaan yëpp di rafetlu bàyyi xel yi ngeen ñuy bàyyi xel ñun nag amuñ xam-xam dara voilà dañoo gis ne dëkk bi ñu war a wax waxuñu rek ñu sop rek ñu ne xaaral ñu wax parce que mm. am na foo xamante ni daal buñ fa tollee ku noppi rek wax dëgg yàlla da am sax part de responsabilité bu mag a mag si kanamu yàlla te di nga ko layoo ëllëg li tubaab di wax ne ki ne dit rien consent ku waxul dara rek mooy ànd nga ci liy xew nii mm-hmm. kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Abdallah kon mbokku internet yi lii leen leen andiloon tey di fàttali nag euh, saay su nekk nii la dinañ fi dalal suñuy gan di waxtaan ak ñoom si actualité Euh, dama fàtte sax kenn koo xamante ne tamit daanaka ba ñu xamante yàggul mais doon na koo xam ne ku bëgg réewam la kuy combattre réewam la kuy taxawu réewam la kooku nga xamante ne muy Oumou Diallo nekk si parti bi nga xamante ne muy parti Mama Guirassy euh, Moustapha Guirassy bokk ci coalition Yewwi Askan Wi Oumou Diallo ñu ngi koy nuyu bu baax au passage nekk fële sa États-Unis ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen kon Abdallah jërëjëf jàmm ak jàmm mbokk internet yi tawféex à CTV, la chaîne des patriotes.